salaamaaleykum mbokk déglukat yi daal leen nag jàmm fondation Coca-Cola mooy jàppale Croix-Rouge bu Sénégal ci ab campagne bu mu duppee stop à la propagation de la Covid 19 ngir xeex mbas mi mu di ab ndimbal boo xam ne nag tollu na ci juróom fukki millions ak ñett mu bokk nag ci ab ndimbal boo xam ne dañu koy jagleel fédération internationale société yi nekk Croix-Rouge ak Croissant-Rouge ci fukki dëkk ci Afrique ngir jàppale xeex bi ñuy xeex Covid 19 démb la ñu leen doon jagleel jàppale boobu kiñ ciy teew. teewlu mooy Bassirou Sow nekk responsable assurance qualité IBS di industrie de boisson du Sénégal. suñu fàttalikoo 2 euh, mars 2020 le Sénégal enregistré woon premier cas Covid am entre 2020 ak 2021 cas yi explosé Euh, par la suite euh, ñu commencé dugg ci ay situation yu xawoon métti tuuti ci dëkk bi euh, ba nit ñi commencé tiit moo am ay problème de confinement nit ñi sonn après mu dem ba benn instant aussi virus bi commencé dellu ginnaaw commencé wàññeeku après ñu am benn période aussi ñu am possibilité def ay vaccin mais depuis boobu gis nañ ni vaccination bi malgré mi fi mais nit yi adhéré wuñ ci trop donc euh, Croix-Rouge moom dafa développé benn euh, initiative bi nga xamante ni dañu ni dañu bëgg a arrêter propagation virus bi c'est-à-dire virus bi waratul continuer di jot nit ñi donc euh, Coca-Cola Fondation ak IBS tey jii dañoo jóg taxaw pour jàppale leen financièrement benn somme wu 53 millions de francs CFA soit 92 mille dollars lañ leen fas yéene jox pour que ñu mën a dérouler seen programme comme nu mu nu mu bu fekkee nag ci jamono ji li mu wàllante yi nga xam ne moom la ñuy fësal ci mbas mi mu ngi wàññeeku bu baax fii ci Sénégal terewul nag ñoom ñu jàpp ne mbas mi jeexagul ndax saay suñu déggee benn kaareek dafa mel ni xeex bi dafa war a wëy ñu war a jël matuwaay yépp ngir li nga xam ne jot nañ ko dund mu bañ a dellu si. malgré wàññeeku na mais virus bi mi fi toujours virus bi mi ngi fi nit dund ak moom dañu président daf taxaw ni nañu dund ak moom. léegi dañuy dund ak moom mais tekkiwul ni virus bi nekkatu fi donc il faut que ñu inciter nit ñi tey jii ñu dem vacciner wu pour que virus bi bañ a continuer di dugg ci biir nit ñi te bi ñu seetloo nit ñi vacciner wuñ après malgré mën nañ ko am mais du ñu am yenn cas yu yi donc il faut que nit ñi xam ni tey ji loolu mooy alternative bi fi am pour que ñu mën a wàññi progression bi parce que feebar bi tant que benn cas mi ngi des ci àdduna bi mooy feebar bi jeexagul donc il que tey jii ñu accompagner. ay initiative comme bu Croix-Rouge pour que ñu mën a dem waxtaan ak nit ñi xamal leen ni lii c'est important nañ ci dem nañ ci dem ba jeex amul luñ ciy ragal du la indil lu dul da lay protéger. mbokku déglukat ñu yem ak yéen ñu yendoog jàmm. bonjour chers la fondation Coca-Cola apporte la campagne stop à la propagation de la Covid-19 de la Croix-Rouge au Sénégal ce soutien d'un montant total de 92 000 dollars soit environ de francs CFA fait partie d'un don multipays à la Fédération internationale

décidé de se joindre à cet effort national afin d'apporter une à la Croix-Rouge du Sénégal à Fédération internationale de la Croix-Rouge, l'IFRC. La financement à hauteur de 92 000 dollars, soit 53 millions de francs CFA, s'inscrit dans le de l'engagement de la Fondation Coca-Cola La fondation Coca-Cola a choisi comme partenaire et levier de son action sociale la Fédération internationale de la Croix-Rouge, qui a su au fil du temps démontrer son professionnalisme et son efficacité par les actions importantes qu'elle mène au quotidien aux côtés des populations sénégalaises. Ce don que nous faisons aujourd'hui réitère l'engagement de notre entreprise IBS, Industrie des boissons du Sénégal, et celui de la Fondation Coca-Cola à demeurer aux côtés des autorités sénégalaises dans des conditions de santé et de développement durable de notre pays. Ce don permettra à la Croix-Rouge de mener des actions de sensibilisation et des campagnes de vaccination au profit des populations et de l'ensemble de notre pays. Malgré la baisse des nouveaux cas de contamination, les menaces de reprise de la pandémie sont réelles et tant qu'il y a un cas existant, il faut poursuivre la lutte, estime le directeur général de IBS. Effectivement, aujourd'hui, le nombre de cas le nombre de cas baisse dans certaines zones du monde. Mais le Covid est toujours là. Les menaces de reprise de la pandémie existent toujours. D'ailleurs, dans certains pays, en Corée du Sud et en Chine, les cas augmentent de jour en jour. Donc c'est dans ce contexte et dans cet élan de se dire qu'on veut limiter les effets néfastes du virus et qu'une reprise est toujours existante. L'avantage de la Croix-Rouge, c'est qu'ils ont beaucoup de bureaux au Sénégal, et cela leur permet d'aller dans des zones très reculées, là où les taux de vaccination sont très faibles, afin de mener du porte-à-porte pour pouvoir effectuer des actions de sensibilisation et des campagnes de vaccination. C'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis.